Sénégal man dama fa dem te mais li ma gën a jaaxal mooy xale yi du ñeelwaan mhm. du ñeelwaan te dañuy ndékki xel euh, xel mais mais xoolal dañuy ndekki dañuy añ dañuy reer. may nuyuwaale sama sëriñ bu baax. saal Saliou Mbacke Daaru Salaam moom it am na ay ay ay ndongo yu mu yor fële ci Tawa Fall mais xale yi du ñu yelwaan du ñu def dara tumuranke rek doy na ci xale mu sori ay waajuram. walaay rek doy na tumuranke. ma dañ leen di mettre tellement à l'aise xale yi yow boo fa demee di leen seeti dañ naan la ñoom bugguñu ñibbi des fois dama leen di chantage ci dara su ma bëggee dara dem fa maa leen demal leen ma fii wala defal leen ma fii wala kon du ma la yóbbaale ñu ne man bugguma ñibbi pour bañ a dem yónneent parce que tellement dañu nekk à l'aise nañu bàyyi xel euh, daara yi bu baax. loolu si am eh, xam nga euh, nabu lu leen yàqal kii mami. waaw boo gisee daara ña fay fanaan dafay yendu. di mhm. jàng alxuraan baarakallahu. Mhm. benn saako ceeb ñaari ceeb ceeb par bis. Mhm. mais doole yàlla la. wallaay dëgg la non yàlla moo def participation. wallaay ci bu doon feneen nga xam. moo tax ñoom sakkine bi am sécurité bi am ci yàlla moo tax du ñu mais yow ñoom yow état seen yaa ko ëllëg xel koom la fay yow yëpp. Mhm. tey rek yàq lu mbay dundee. mbay mhm. dundee boobu nag parce que loxo yàlla ngi ci biir comme nan boo jo man sama joxe dépense sama soxla na ko demal togg añ tey neel benn. Mhm. boo xoolee ñaari kilo ceeb bi ak genn wàll doon wala ñaari kilo ñaataa ciy lekk ne ceeb bi lu tax muy muy bëri yàllaa ci dugal loxoom barke baal. da ngay am habitude boo nekkee ci kër ñu naan la eh, xol xol du eh, bool du xat xol mooy xat. Ah, loolu rek la firi nga ko. Mhm. ñu ne la eh, xol bool du xat xol mooy xat bu xol yi yaatoo rek euh, ñëpp dinañu. mën a nan naa ko mën a waxee añ ci bool bu ndaw te ñëpp suur nag. maa ngi ciy hmm. nuyuwaale sama càmmoñ ju siis jooju nga xam ne du bokk ñam. kan ci maa ngi jégalu da nga am càmmoñ bu siis est-ce du ma jégalu ma mi dama jégalu. ah ci waaw waaw oustaz bu gàttee ñu jël. yàlla yàlla fay sama bàyyi. amiin amiin doomu kokki la. Mhm. bu ñu masaan dem ba ni ñu màggatee. Mhm. lii naan boolu famille damay xëy liggéey kii xëy xëy liggéey gis nga bool bi ñu tibbal. Mhm. benn jën bu mag moo ci nekk. ndeysaan boo jëlee lekk li may lekk kay ñëw bu ñëw lekk loolu ba nu mu jeexee kenn mhm. diine koy def. gis nga billaahi bu ñu doonee diine Sénégal rëcc na. <coughs> ñu dem euh, ci beneen ponk bi ñu nar a waxtaanee.